yàgg nañ fi toog di réunion di waxtaan te kóolute gi ñu amoon ci ñooñu noonu ba wax leen bàyyi leen suñuy suuf pour ñu lotiral ñu yaakaar naa kóolute googu la yàq donc danoo ñëw ba ci digg ñëw won ñu li nga xam ne gënaluñu te ñun buñ ko yegee wax nañ leen ko nee nañ leen lii gënal ñun waaye comme dañoo bëgg a jaay doole wala boog ñu ëpp ñu doole ñëw jaay ñu ko ñun ñu dem fi ñu war a dem dem nañ ci sous préfet bi dem nañu ci mairie bi d' abord dem ci sous mujj ci gouverneur te gannaaw yaakaar nañu ñun ay sénégalais ñu am à part entière ci Sénégal la ñu bokk donc ñooñu noonu waroon nañu mën a taxaw parce que tey jii bi ngeen fi ñëwee gis ngeen ni fii tool yi yëpp ay toolu kaju la ay toolu mango la ay toolu euh, orange la ñun ci yii la ñu yaakaar ci moom la ñuy dundee donc du ñu nangu ku jógee fa la ñëw foqatil ñu loolu ba pare nañu nañu noppi ndaxte fi mu ne nii te ñoot ñu la ñu toll mu ngi nii jàpp nañ suñuy netti nit ci tooñ leen xamuñu ci lañ lañ jàppee yóbbu lañ tëj leen donc looloo tax tey jii ñu ñëw taxaw fi pour yégal autorités yi parce que bëgguñu mu yem Ziguinchor gi lu ñu doon yàgg def à chaque fois rajo yi fi nekk ñoo ko doon diffuser dafa mel ni sunu autorités yi dañoo dañoo dañoo dañoo considéré wul dañoo bëgg bii yoon Sénégal gépp yëg ko lii xew Ndingler lii xew feneen ci Sénégal ñu jàppee ko noonu parce que ci suufu Sénégal lañ toll donc tey jii bu ñu xëyee ñu ne ñu ñun dañoo dañoo def naka su dul noonu ba ñu jàpp suñuy nit ci loi yu Sénégal yooyu interdit ñu ko donc pourquoi par autorité sénégalaise yi ñoo nan def taxaw ñun xanaa duñu ay sénégalais wala bokkuñu senegal lan moo tax ñii ñu leen di seetaan ñuy ñëw boo ba tey ñun ñu ngi woote wàllu woo nañu ku ne gis nga nag mbéjum kanam comme ni ñu koy waxee borom a koy fayal boppam donc dañoo ñëw xaar na noo xaar xaar xaar ba sonn xamatuñu fu ñuy fu ñuy fu ñuy dem moo tax lii xew am te yàgg nañ leen woo di leen ko wax ñun lii la ñuy bañ bëgguñu bëgguñu bëgguñu ku ñu euh, ku ñu ku ñu dëkkal fu ñu dëkkut